tey di àjjuma tolloog ñaar fukki fan ci weeru mars 2020 ñu ngi toog ak Cheikh El Hadj Braham Serigne Baye mu am kàdd yu mu bëgg a jubale ci askan wi rawatina ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiite réew mi ñu ànd déglu ko. alhamdulilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi wax ci baatub lislaam ngir bëgg jàmm réew mi jàmm àddina bi di roy yonent moom sallallahu alayhi moom mi nga xam ne mooy njiital diine lislaam di sukkandiku ci alxuraan mi nga xam ne mooy suñ lépp suñ lépp yonent moom li mu wax ci xew-xew bu mel nii bu kenn dugg bu kenn génn loolu la ci wax maa ngi dégg na yu bari ci réew maa ngi bëgg gërëm président bi ndax gisoon naa mu wax te farata rek la waxoon li fi li ma li ma dégg nag ñu mu xew léegi ku ne naan buñ julli jumaa buñ julli jumaa buñ def nii buñ def nii dama xam ne jàmmi réew mi jàngkat yi ñoo ko xame muy daara yi ak jaamukat yàlla yi muy jàkka yi ak jumaa yi loolu nag su xewee ak bu dee jàmm lañ bëgg sax nañ leen bàyyi ñoom ñu jiitu jàng ñaan yàlla rawatina bu ñuy séentu leen yambarta rawatina bu ñu gis leen ñëpp lay wax nag ñu dellu ci yàlla wax astaxfirullah atuubu ilallah ku nekk rek ñaan naa ko mu def ko def junne yoon hatta président bi jiite réew mi moom moo jiite réew mi moo gën a bëgg jàmm réew mi ñu bëgg ko ñu bëggale ko ko ni mu ko bëggee man nag danaa def junne astaghfirullah junne ak atubu ilayhi ñëpp lay xoo ku bëgg jàmm réew mi rek xoo la moo xam gouverneur nga moo xam préfet nga moo xam sous-préfet moo xam ministre nga moo xam directeur nga moo xam koo xam ne baat ci réew mi nga ba ci président de république bi ak jabaram ñëpp lay xoo ku bëgg jàmm Sénégal rek maa ngi lay xoo ku gëm yàlla itam maa ngi lay xoo xootewu ma ci benn daraja nag xootewu ma ci benn daraja kenn itam ci yàlla rek lay xoote ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu balu yàlla tuub dellu ci yàlla te bay jàkka yi buñ leen tudd nañ leen bàyyi ñoom ñu ñoo amee jaam réew mi yi ak jàngu yi jàkka yi ak daara yi yi ak daara yi ñu jaamu yàlla ñaan jaamu xam ca man lii lay woote ñëpp laa koy jotal ñëpp lay waxaat te bàyyiwuma kenn ku génn rek yaa génne sa bopp waaye man ku gëm yàlla mbaa nga bokk nekk si diine islam bala nga gëm yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di ñaanal maa ngi ñaanal réew mi nag mu réew mi am jàmm ci saayir am jàmm ci baatin am jàmm tey am jàmm ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah kon kàddu yaa ngoog moom bi doon jubale ci mboolem jullit yi ñu ngi neen yàlla mu may dégg alayka salaatullahi thumma salaamu fa barahamu jiddun aashiqun fika